salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a sawoo seen chaîne bi di Saint-Louis TV ak si eh, reportage bi nga xam ni dañ leen koy defal gis ngeen la la fois passée jóge nañ fi nga xam mooy bopp coor tey ñu fi nga xam di Gendar rien que pour wane li nga xam ni moom la gars bu ne Gendar nak ngeen xam xel eh, bi dem fi nga xam di bi ba tax ñu nar fi indi li nga xam ne fi am wan leen li nga xam moo fi nekk gars yi tamit mën a waxal seen bopp li fi nekk ñu ànd seeg suñu cameraman bi nga xam moo di Nobis war a dugg ci biir wala li fi donc rek ngeen gis li fi sama gis ngeen Gendar gerte fees bi léppay leer incha allah jaa ngeen jëfati let's go. ne ayoo may koy géej gi dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di métti ayoo ay mu dem ay catu Seck ñu gën ma xam si ak Ndiaye Seck waaw ah, dëkk fii si Langue de Bara fii Ndar di am jafe-jafe yoo xam ne dañ koy dund fii si jàmbale kaw keeb yi loolu lañ bëggoon ndax si daal pour ñu dimbal ñu ndax boo xoolee ne keeb bi dañ fi nekk di ci liggéey dafa dëgg yàlla jafe-jafe yu bëree bëri dañ ciy dund rawatina si wàllu jënd ak jaay bi nga xam ne mooy wàllu jënd bu nu amee jënd du jaay bi ba lu koy jaay dinañ sonn te jënd jafe na ñaareel ba mooy ñi nga xam ne su leen denc jën benn place boo xam ne fi denc jën amul benn kay jën kaw kee bi nga xam te ne jaay amul fi ñu toog pour liggéey bu dee boor dex gi sax ñu defal la place ne ay mbaar la yoo xam ne daan bi mën def suñu surga yi di si galaas suñu jën di si jaay loolu tam bu lu am solo daal man la Abdou Mbaye Marier fii ci saint bi bon ñun nag suñuy doléance bari na bëriwul parce que dañ fay nekk di liggéey liggéey bi tamit kenn ku ci ne xëy fi li fi liggéey ci nit parce que danaka ay milliers de personnes la mais sun problème li ci njëkk mooy quai bi quai bi bi mu yàqoo ak léegi daanaka def na 4 ans même bi muy bi muy màbb sax ci kanam ministère de Omar Gueye la màbbee li may wax nii bu déggoo may bu déggee may wax jour boobu RTS sax ànd naa ak moom ñëw fi mais yéen gis ngeen quai bi ni mu saltee te amul benn oto bu fi déparé te du fay li mu war a fay bi ci topp mooy ndar li muy génnee fii ci jàmmalaay ci ay millions kenn xamut lu mu toll mais gis ngeen ceeb bi ni mel salte na même kaniwo kaniwo yi ci boppam sax baaxu fii bu buñ la wonoon maanaam li nga xam ne moom lañ fi defaroon moom mooy li ma la wax ni la euh, Omar Gueye bi nga bi mu ñëw ci kanamam la daanu bi mu daanoog léegi quatre ans mat na ko baare woon nañ lépp ni woon dañ koy defar boobaak léegi amul leen loo xam ne si yëkkati nañ ko defar ko ci Saint-Louis lii seen problème du problème mu maanaam ñàkk bëgg a liggéey mais administration bi ci boppam mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo nu jiite ñoom ñoo yéemut a xool ci yenn condition lan ne condition yi nekk nag mu ngi nii loo xam ni télévision moo ko wane kenn du ni am na wala amul kee baa ngi nii am maanaam waxuma la dara sax waaye problème bi ci nekk daaneeluñ ko nit ñi ñi ngi ci biir di fi toog di fi def lépp léegi nag lan la def dañuy toog ba benn jour benn benn benn kii màbb ci seen kaw ay nit dee ñu naan nangam ak nangam te lii nem nee naa la quatre ans ngi nii nii la mel salaamaaleykum waaw man la Arouna Malayni Gaye président association des petites pirogues de Saint-Louis mën na ne sax Sénégal parce que fépp doomu Ndar nekk rek si littoral bi yaa ngi yaa ngi si biir association bi waaw ñun nag suñu jafe-jafe comme ni ma koy yàgg di wax rek maanaam ñun ay gaalu ndaw nañu amee te boobu léegi gis ngeen frontière bi ak diggante suñu digganteeg Mauritanie kon dañu gën sàkku si état Sénégal di ko wax ni que licence nga xamante ni moom moom la jox gaalu mbaal yi te mu jëkkoon si gaalu ndaw yi na fexe xool gaalu ndaw yooyu xam ni si njabootam na parce que nanu wutal affrènement bi mu wutal gaalu mbaal yi gaalu ndaw yi aussi mën nga am parce que gaalu ndaw yi noo fi jiitu noo fi ji parce que képp kuy napp rek si mool gaal gu ndaw commencé balu mag fekk la kon gis ngeen booru dex gis ngeen gaalu ndaw yu fi nekkoon yëpp ak si wàll bi mënatuñu dem géej ndax amuñu fit parce que ku fi tëmb léegi kanoon di jàpp la wàllum quai de moom comme ni ma koy waxee rek quai de pêche Sénégal yëpp kere pesu Saint Louis li muy génne si ay milliards amul benn kees bu génne si milliards parce que kere pes bi bi baaxul tuyau yi baaxul parking bi baaxul amul sax foo xamante ni am na réservoir parce que amul lamp de un amul mbaar moo xamante ni suñu ay jigéen wala yeneen mariér yi mën nañ fi toog di si waxtaane parce que boo demee yeneen kere pes yi si noonu référence yeneen kere pes am na fu nit ñee féexloo am na fu nit di dajaloo am na fu nit ñi noppaloo mais quai de pêche bi amul dara kon dañuy sàkku tamit milliards yi nga xamante ni mooy génn à saint du ma ne sax à Saint-Louis si gendar milliards yi nga xamante ni mooy génn gendar si pêche bi nan nu ko delloo te nag loo xam ne xale ya woon nekkatul xale yi xale yi léegi xam nañu qu'est-ce que ça passe xam nañ seen dëkk fi mu toll xam nañ seen quartier li mu leen jaral wàllu wàllu bale bi moom ñaari paano bi ne xaw ñetti samedi ak samedi ak dimanche bi daanaka kenn du bale ñun ñoo koy bale kay boo xoolee ci yëpp ñi dafa salte yëpp a salte yëpp foo tëj sa jën am na ñoo xam bu ñu ñëwoon di jënd jën bu ñu jënd jën du ko sax bëgg jënd ndax fi ñuy tëj jën moo tax bu bu doon suñu sogoon defal place bu baax boo xamante ne daan fa mën a tëj jën di ko jaay rek yàlla sax ndax boo xoolee euh, corona bi bi fi génn temps yi problème bi bu lay la indi ci wàllu kaw ndax nit ku ba nga koy toppaloo da nga koy dox li nga xam ne moom la mën téye man toog ndax boo nee tey jii tey fii bu ñu liggéey te jàppale ko fu mu liggéey kon loolu amul sens bu doon suñu toogoon ñu jàppale suñu kër bi defal kër bu set kër bu baax ñuy yabal ñun ñoo xam ne ñu toujours di ko bale ba mu set di ko toppatoo ba mu baax ba defee jënd mu ko téye ku ñëw mën jënd suñu jënd ndax sonn nañ trop dañu sonn moom ñu jigéen la nga defal borom dañu sonn trop nag loolu wax dëgg yàlla ay autorité waruñoo toog di ko seetaan kenn contre fi kenn kenn di waxu fi lenn loo xam ne lu fi amul la lii moo am seen li kee bi salte na li nga xam ne mooy tamit kee bi li nga xam ne moom lañ fi defaroon mu mu waroon a protéger ñu war cee def ay lampe war cee def ay lépp ñu man ñu mën di traité jën gis ngeen ni mel dans quatre ans bis ba tey ñu ne dana ko defar fi kenn defaru fi dara léegi nag gis nga affaire baa ngi nii te li ma la wax ñun ñi fi nekk ñëpp amut su benn oto bu fiy jóge te du fay lam war a fay te loolu lépp ci administration bi la jëm lan mën a def nag mooy jooytu ko jooytu nan ko ku ne kilifa yu ne ñëw na fi wax waaye lanuy wax ak ngelaw lay doon parce que la tax ngelaw lay doon amul dara loo xam ne si defagul nañ ko ci lu xam ne yéenu na maanaam ñun ñooy ñooy toog yenn jour yoo xam ni suñ association bi ñooy toog li fii lépp ñoo koy bale wut kii raxas ko ba set te loolu jàpp naa ne mairie la war mais ñun waruñu ñun li ñu war rek mooy euh, li nga xam ne moom lañ yelloo ak mairie bi ak li nga xam ne moom lañ yelloo ci oto yi di ko fay ñu di ko fay mais loolu nee naa la amul njariñ parce que lu tax amul njariñ mooy gis nga ni kee bi mel nii ak lii nga xam ne moom lañ war a defar te defaroon ko ba léegi noonu la mel. di lancé appel tamit président Macky Sall ni ka moom mooy suñu président wax nañ ko waxati ka waxati ka moom moo ni woon bu nekkee président pes bi lay jëkk téye si loxom kon jàpp na ni bu wàccee gendar gis gendar benn amul chambre froide amul quai pes bu baax amul ay magasin yoo xamante ne daanu consommer sax ay dencukaayu jën en cas réservoir bu dëkk bi manqué jën fii amul te génn li ñuy nekk xale yëpp liy génn fii si ndar si ay milliards waxuñu millions de ay milliards xam na nu mu day parce que si dëkk bi nañ dëkk am na yu nu géré kon jàpp naa ni bu kenn jaakaar ni ñun xamuñu li xew si dëkk bi xam na nañu milliards yi génn si dëkk bi kon milliards yooyu état Sénégal si boppam génnul noor génnul soor mais Saint-Louis lay génne fan si Saint-Louis Langue de Barbarie. waaw moo tax daal bëgg ñu jàppale na bu baax baax baax ndax sonn waaw jàppale si oto yi jàppale si firgo yi ba si chambre de foyer daal mu si jàppale nu am fu ñuy def ndax kaw kee bi boo xoolee kee bi ni mu mel kee bi xool dafa salte bu si nañu ñëw fii fayu xaalis dem seen yoon raxasuñu ko bale defal dara bu si na ñun ñooy fay man fii ma yeewu suba teel man may jël sama bale jël sama ndox maay bale ba mu set defar ñëw toog te bu ma a balewul daanaka ku ñëw doof man teg sa jël te loolu ñoom noo war ñëw man teg seen affaire kon na noonu dimbali bu baax a baax a baax li fi ne lépp xam nañ defar ak ñàkk defar kay lañuy wax waaye li nekk Saint-Louis moom xam nañ ko bu baax a baax ke ba ci mool yeeg ba ci kër yeeg lépp kenn ku ci ne jàmbat yi agsi na ci ñoom agsi na ci président de la république parce que xam na ko parce que président de la république yaakaar naa ni nekkul koo xam ne étranger la xam na li xew ci dëkk bi lépp Saint-Louis daal la ngi nii li ñu jàmbat xam nañ ko mooy brèche bi ak li nga xam ni mooy euh, nu su mooy brèche bi ak li nga xam ne mooy quai bi ak kër yi di bëgg a daanu te loolu lépp teg nañ ci bët xëy na xëy na ñu ngi ciy defi jéego waaye jéego yuñ ci mën di def daal war naa gaaw te ñun bu fekkee ñun fii ci jàmmalaay la ñun nu benn jéego bu mu la tegal waa Sénégal moom dama leen di ñaanal jàmm ak salaam ñi ngeen def nii lu baax la bu doon suñu sogo bus na ngeen ñëw bus seen reportage ngeen sol li ngeen gis tey ko gën piir mu ngeen tey gisaal ndax loolu moo fi di leen ñaanal yéen aussi waa di leen ziar di wax nag nanu gën taxawaay nan Mansour Faye mi nga xam mooy maire bi na gën def taxawaayam si langue de Barbarie parce que lama ma waxoon rek laay wax ñi mu xalaat ni noo nekk fii si langue de barbarie xamuñu léeri si dëkk bi or or ñoom bu ñu toogee ak moom dinañ ko wax loo xamante ni maîtriser wuñu ko fii man sama baat sa kaw man nëbbatu ma baaru ma li may wax dama ko ñeme ndax dama ko assume ndax si dëkk bi laa dëkk damay kaasal sama gox kaasal sama droit ndox ñun noo ngi liggéey sunu liggéey mais sunu ak ak sunu yelleef si dëkk bi Mansour Faye na wàcc mu xool bu baax Guet yan effet noo fi nekk bari na fee yu fi nekk yoo xamante ni ñi mu samp fii waxu na ko ni A waxu na ko ni B bu leen wooloo dañuy ñëw rek waxal loo xamante ni or que nekkul si dëkk bi laa amoon lu ci sànni jërëjëf. ba léegi noonu la mel loolu rek lan ci wax ñu ngi leen di sant bu baax yéen waa Saint-Louis TV di leen sant di leen jël. mbokk yi ah, gis ngeen comme ni li fa jot am lépp donc euh, message bi ñu lancé tout le waxaat mooy que ñi nga xam ni ñoo war jàpp si liggéey bi ñoo ngi leen talal loxo bu baax a baax ñi ngeen ñëwaat jàppal si liggéey bi ndaxte ba mu jógee bopp ci woon gis nañ liggéey bi nu mel gars yi bëgg nañu loolu réaction yi bëri na mais tamit nga xamoon ni Guet bëgg nag ngeen a jàppale ñi xam ne dugal xaas bu baax a baax donc yoon la aussi tamit ñu mën leen jàppale gën a euh, yombalal leen seen liggéey gën a def li nga xam moom la ñuy xaar si ñi nga xam ñoo nekk fii ci diwaan Ndar donc loolu lañ fi indi woon je pense amatul lenn ci wax ndax ñoom seen wàllum bopp wax nañu lépp liñ ci bëgg rek mooy que yéen nga xam ne yéen la yéen nekk ci fii di ay autorité ngeen ñëw taxaw nga xam ñoo fi nekk parce que ñi fi nekk ay jàmbaaroon ay jigéen fi nekk ah, ay mag ay xale ñëpp a fi liggéey bi boo ko defee ñu ngi jaar bu baax baax ak bëggee suñu caméraman lu gis ko moom nekkoon ci ginnaaw ak tamit euh, Mélanie bi nga xam ne moonu yombala liggéey bi di gërëm waa Guet Ndar di gërëm population Sénégal liggéey bi nag du yam fii daan dem ci yeneen secteur yi incha allah gën leen fësal